faatu doo ko fekk maa ngi def nañu Macky Sall. waaw waaw gaaw faatu doo ko fekk. wallaay ndeysaan très bien. loolu deux mille douze ba léegi ñu ngi koy wax après. dëgg la dëgg la. Uh-huh. mais buñ ko gis incha allah. jamais li taw Abdoulaye Wade la. jeex na alors dem ma nekk dëkk baa ngi toj man maa ngi doon sama kër di liggéey rek sama téléphone sa silence yëguma sax ni dëkk bi di réer ndekete ñu ngi wax wax bu bon jooju. mais c'est pas la première fois. dañoo bon rek c'est pas la première fois dañoo bon rek. émission comme ça ñu waxtaan ak sénégalais yi ñu xam ñu comprendre. wallaay non jàppal seen jotaay bi. Ah, dañoo amoon 43 ministres ci gouvernement Souleymane Ndéné Ndiaye. waaw. ñett ñoo ci des man ak Karim Wade ak Khalid Gueye nga sa yoonu bopp pour ay raison yoo xamante ni mën nañ la ko nangu. ñu ci gën a bëri nañu fekk ci Macky Sall. génération am na gëmuma ci yées. dëgg la. daal man loolu laa dal. très bien ñàkk fayda yooyu. très bien. ndaw day gëm boppam. mais dafa non non jeex na baax jeex na. waaw. Cheikh Yérim Seck dafay wax wax du am solo. nee na réew mi nit ñi dañuy tëdd vingt trois heures mais kenn du nelaw ba fa jàng. Ahmed yow xam nga lépp. lay Cheikh yow fii yow Ahmed yow rek waroon nga mën a tontu ci sama place. Massalikul Jinaan laa bëgg a gis ba ma yóbbu Abdoulaye Wade ca biir salon ba man Macky Sall Abdoulaye Wade Serigne Bass ak Serigne Touba Serigne Mountakha lu nga doy gis Macky Sall moi je suis au PDS di def loo xamante ni meeru APD bu ñu ko def lu may doy def ci PDS te lu may doy def ci APR loolu ci li na ciy gën a métti nag mooy say nitu parti ñoo koy génnee mm-hmm. magi parti yi toog lu ñu war a wax du ñu ko wax li ñu war a jubale du ñu ko jubale incha allah danañu ko réglé. mais Fatou Laye. waaw daaw Fatou doo gis ba kii Baara Gueye dem na ci Macky Sall. ah wax nga de. ak dëgg.